di ma ko def mu tax ma ji. boole leen ñoom ñëpp ñu ko jox nañ seen bopp. kay loolu yoon. ñëpp ñu ñu ko jox seen bopp ci guddi gi rek ma dara si moom ñu ngi bàyyam suñu baara jël na ko ñu ko. Mm. moo ko bëggee bu daara ci ñu def ñu dongay ba màcc ko. ko suñu baara bëggee jox forme suñ bi ko rek ñaanal ko rek lim li nga jox war ko jox moom dem naa ko indi ñaanal ko lépp nga xam ko baax ngeen lu ëpp loolu wallahi ci ci ñu ci ci gi wallahi yëkëti 1 million jox ko njabootu maam Seysa Diagne ma sha Allah ñi wax diko ñu ëpp ay leen leen jox leen jox la bëgg mu ëpp ngeen lu mel sëriñ Moustapha Saliou nee na lu waay bëgg fas ko ci sëriñ Moustapha Saliou moom sëñ Saliou Mbacké maa si leen tàll loxo teew amin amin Mbacké amin Mbacké win sëriñ Moustapha Saliou yàlla fi yàgg te wér win Mbacké